tuut si rek ci day xew ci jamono ji te fan yëpp ñu koy coow muy weer bi yëpp muy tuuma ju njëkkati teg ko ci deru gor deru julit deru taalibe bu dëkk ci réew mi te lépp tegu ci ay sos moo ko waral koo xam nag yàlla daf laa dénk doole jox la pouvoir bépp di la sàmmloo nga war a sàmm ba war a jofal war a xontu jur gi ñu bañ a xiif bañ a mar waaye nga yeewu leen joxoo leen leen lekk joxoo leen luñ naan teg leen ci condition yu ku ko def ku ne day yaakaar yi dina la jëkk te yàlla teral la ba noppi nga bëgg a toroxal doomu aadama yi ko yàpp ku jàpp ne da nga mën nit sa bopp su réew nag man am naa ci jàqare am naa ci tiitaange am naa ci tam ak jaaxle ndax réew moo xam ne dañuy quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañu waaye am kenn ku leen jiite ne ca bopp ba mënoo wax jullit la mënoo wax lan la te njiit dañ koy tànn waaye njiit loo xam ne dafa soxot ñàkk njariñ ba noppi di xeex diine kuy tànn wuroo tànn kooku bu la ko yàlla nattoo nag da nga ko muñ te lay mel ne ñun Sénégal yàlla doon na toll loolu ndax soxat weesuut ne cim réew jiite ko ñuy wax ay opérateur économique wala ñu leen di wax ay homme teen bañ daan naane tëjoo ko nga war leen ko defal moo di forage nga branché ay tuyau fo ne ndox ma jote fa ñu naan buñ bëggee togg togg buñ bëggee sangu sangu defoo ko waaye nga bëgg a sakk teen boobee de mën naa ñàkk te loolu weesuwut mooy tëj seeni compte ba mënatu ñu am dara nga nangu lépp téye ku ci amoon nga nangu ko walla nga xaaj ko te doo ko dugal foo xam ne njëriñu réew mi sa soxlay bopp nga koy dugal wala nga jox ko say bokk loolu iñaan féetewu ko kaw moo tax opérateur économique yi sonn nañ homme d'affaires yi sonn nañ iñaan weesuul itam Sénégal yi nga xam ne ñoo liggéey ba am seen paas dem bitim réew di fa liggéey di fa yëngu te doo ko mën a dugal ci réew mi walla nga ne ci réew mi war am xaalis bu la jógee bitim réew boo xam ne pour pour lewal doomu ma lay doon nga bu koo jàllale si te doo ko mën a doo ko mën a dugal doo ko doo ci mën a jot am million sax boo ko dugalee day laaj foo ko dugal rek foo ko jëlee rek foo ko nangam nangam bu dee 4 millions wala 5 millions waxi noppi jëw ndax ñaari at yépp ku fippiwul sa jumaa daa tëj daara alxaani nga boole ci di jëng sëñ daara yi jàngale di di leen tëj ci kaso bi ay juróomi at ay ñetti at ay fukki at di leen tere yalwaante dimbale woo leen féete woo leen fenn ki ñaan féete wu kaw njiit nag su fekkee dafa dëng jeng ay àttekatam gën koo dëng gën koo jëng moom réew dana yéex a jag te kat képp koo xam da ngay àtte te àttewoo ci alxuraan suñu borom nee na kooka ab kàccoor la ab yéefar la ab naafeq la borom dana àtte te àtte suñu gën a jub moo gën a maandu ku fii ak ndëng àtte fii ak ay caaxaan na xam ni suñu borom te boobaa da nga am gàcc da nga am kersa te da nga rus kon réew mi ñu ngi jafoonteeg ay ñu ngi ñu ngi ay coono te kenn tegu leen ko lool njiitu réew mi fi nekk. bi bëgg réew mi day dawul jóg Touba dafa ne daan rap rappé toog ci suuf di si jot ragal ko fa lool ma ko Abdoulaye Wade bëggee tëj fii la ñëw ci Cheikh Mahamadou Lamine Bara boobu moo fi nekk di jooy daanaka alañ Bara dox diggam ak gàcce googee ba tey yeesu ko waaye tey jii de lam ragaloon mi koy def gor di leen toroxal di leen duma te kilifa ko ko ñaan mu làkk te ba mu jàqee day gi li ñëw ci kilifa yi ñu dox digg ma gàcc waaye nag day mel ni moom kilifa ko ko ñaan mu gàccal la ba ñëpp kenn sawratu koo ñaan kon jiit li mel noonu ku am yàlla natt na la waaye nag yàlla du tëj bunt tëj fenêtre wàcc bi dox mais dégg leer na seen complété yi ndax ñoo yor lépp bëggoon a toroxal Sonko waaye nag sun borom kum nar a dimbale kum nar taxaw kum nara a su daal ab jaam lott na ci toroxal la tuuma ji ñu teg sonko di dara wéru ci te lépp leer na bëgg ko gàccal tam moo tax pexe yi doon def tey jii yëpp ñu def ko waaye yàlla leer na lépp ku am sañ-sañ nag am doole jàpp ne yaay buur di bu mi ba loolu neex nga def bisimilah yàlla gëmul nelawul te moo fi sax gàcc nag baa doon lu ko jub mukk mukk mukk tàggu ca kuy bëgg a dee ci xare lu jiit xeeb ko damaa yaakaar nag kuy bëgg a jeexal daa war rafetal waaye waroo ñaawal te kii fi nekk day rafetul dara rafetul dara comme réew nag dañ cee nekk di ay julit di ay sénégalais defar luñ ca xam war ko wax lu yàq luñ ca xam war nañ ko wax ndax noo ko waxoon ci xuddaamal xadim ni danaa wax ashadu an laa ilaha illa li ay julit kon lu ñuy xam luy defar ci diine war nañ ko wax waaye luñ ca lu ko yàq war nañ ko def wax aslamtu nafsi itam doon ay taalibi kon do yoon wi lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax luy defar suñ ko xamee war na ko dëkk ci réew mi nag am dante Sénégal di citoyen kon nag réew mi lu ci wax lu ci defar buñ ko xamee war nañ ko waxee lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax loo tax ñu yëkkati suñu kàddu ci suñu turu bopp di naqarlu xew tey di ko ñaa di ko ñaawlu di ko métti ko ànd ak nag ñi ñu bokkal pas-pas ñëpp ñi ñu bokkal bëgg réew mi ñu bokkal dëkk ci réew mi gu réer ci noonu guy gàcce gu réer ci réew mi itam gàcce gu réer ci jullit ndax jullit jullit ay mbokkam boo gisee ñu yëkk suñu kàddu nag lii ñu wax rek moo tax Sonko nag sunu dëkkandoo la noo bokk dëkk si kër góor gi ba noppi ñu xam ko ci ak ak ak gëm dara pratiqué bu wér a wér a comme ñoo bokk nag ñoom jàngale ñu jàngale ay tubaab bokk nekk ci réew mi mu gën a leen lim gëm diine te gëmuñu ko di ko pratiqué moo tax suñ ko bëggee daane dañ koy tuumaal ci jigéen wala leen ngir gàccal ko waaye fiir googu mu yàlla raxal na ko li ñu ko bëgg def nag daan doole daan jaay ko doole doomu la te doole nag moom kenn jaamu yàlla doole ñuy sax yàlla joxe nguur moo koy xañ kon mbëkki ak ñi nga àndal xam ne fi jóg jóge benn nguur yàlla rek sax benn nga toog fi li nga war a toog mu jeex nga jóge fi wa illaa nga def gaaf ñu jëlee la fi te lii gaaf la boo xam ne soo ci soo gannaaw mën naa dem ba réew mi bañ la gedd la ba max la puus la ngeen def ci te loolu nag kenn yéenewu la ko soo sañoon da nga fi nekkee na fi Abdoulaye Wade nekkoon am yërmaande nangu kilifteef nangu ndigal loolu taal bi waaye yow bis bañ la falee te dee bëggoo pare nga waxoon ne Séné nga ne nga waxoon seen kilifa yi di ne ay citoyen seen pale ordinaire lañ loolu nag moo nekk sa xol ba tey jii yaa ngi leen di jéem a gàccal yaa ngi leen di jéem a toroxal waaye ak jafe ak ay jafe ndax ñoom kat liñ am mayoo leen ko te mënoo leen ko xañ diine leen ko may suñ borom a leen ko jox jaarale ko ci diine kon diine leen teral islaama leen teral yéen nag àdduna moo la teral te àdduna comme teral ko ne bis la ñëw mu toroxal maa ngi sant ñëpp dëkk